daal dégg yow Issa yow ni nga mën a dëkk si jamono ci yow ni nga ko doyee waar <laughs> kii ni mu doyee waar waa ji <laughs> c'est un grand président quand deux présidents se retrouvent le second se met à l'initiative <laughs> président ñu ngi leen nuyu mais maa ngi leen di fay Mbaye euh, président euh, ñu gis ni tey conférence de presse bi moo xam muy pap Thiaw moo xam aussi muy pap, Alassane Gueye euh, question bu ñu leen laaj la première place du groupe mu mel ni objectif pour équipe nationale Sénégal et souvent fàttali ko Malawi. Mm-hmm. Euh, Boko nga ci li nga on va gagner ces deux matchs pour jouer face au Burkinabé la première place du groupe la femme est moom moo ni nii. waaw de naa euh, ci euh, tirage au sort bi xamoon nañu déjà que ñaari équipe yi nga xam ne ñoo fi Sénégal d'abord après Burkina buñu ñu le ranking euh, FIFA bi buñu ñu xoolee dernières performances dernières années xamoon nañ ñaari équipe yooyu ci yoon ñooy favorite yi donc euh, terrain bi confirmé après nag euh, li des mooy ñun ñu fexe confirmer suñu leadership bi ñu depuis quelques années donc mooy lan xëccoo première place bi parce que compétiteur du doy les mêmes. c'est-à-dire saa yoo amee objectif boo atteindre da ngay gën euh, yéegee pour taat leneen lu gën a kawe te euh, defe naa gagné match bi dinañu may euh, ñu mun a jël pole position avant le dernier la dernière journée pour première place bi donc loolu dina bokk ci li nga xam ne objectif la parce que am na ñaari match pour terminer premier mais bii déjà gagné ko dinañu may ñu positionné wu teel ci première place bi parce que xam nañ ne ñu nag Burkina ñooy un point Golf Village ñu et euh, pour ñu nous il faut que nous gagnions. parce que nous ñu nulee dernière journée nous dañ koy jouer en étant en deuxième position et on sera un peu devons tenir notre destin en main donc euh, la meilleure manière d'assurer cette première place là pour euh, beaucoup de raisons par rapport à notre statut par rapport au classement FIFA et tant d'autres ce serait une bonne chose de terminer en beauté en gagnant contre le Burkina. On sait que c'est toujours un adversaire coriace euh, pour tout le monde, mais particulièrement pour nous, le Sénégal. Mais euh, on les bat plus souvent qu'ils ne nous battent. Et donc, on espère que cette tradition-là va se répéter. Président Nugisni, avant, avant la double confrontation face au Malawi, il y avait la tension qui était là. Euh, entre-temps, il y a eu aussi la non-reconduction contre à l'UCC. Il y a eu en fait beaucoup, beaucoup de choses. On dirait que euh, ces deux victoires, on, peut pousser euh, le stress, les problèmes au sein de la tanière et aussi les relations entre le ministère et la Fédération sénégalaise de football. Écoutez, je pense que le haut niveau, c'est ça. Hein. Le haut niveau, c'est beaucoup de pression tout le temps. C'est-à-dire, plus on est haut, en termes de performance, en termes de statut euh, dans le football mondial, plus on vit les, les, euh, la, la, pression du résultat parce que les gens s'attendent à ce qu'on gagne, les gens s'attendent à ce que nga def résultat. Euh, rax ci dolli Sénégal li Tamalon, Niti nit yi te njëlbeen mooy def sax bi moi dañ doon qualifié mu leer nañ léeg sax dañ gagné suñu match yëpp donc bi bi ñu ñëwee ñu am bi match nul nit yi commencé am jiixi jaaxa mais defe sur le terrain euh, équipe bi musul changer xaar kanam euh, souvent perception li meilleure perception Moi, nit yi li ñuy xalaat ne pression sax du am si joueur. yi parce que joueurs la defe naa ñi am niveau bi ñu am maîtriser nañu seen li ñuy def euh, encadrement bi tam amaana comme ni nga ko waxee Aliou nekkatu fi yàgg nañu liggéey xam nañu environnement au niveau xam nañu li ñuy def je pense que da doon metti Euh, équipe bi ñaari xar kanam la moon parce que nit yi loolu la fàtte toujours te mettre ñu ko en exergue mooy lan euh, am nañu jafe-jafe xëj na ñaari match à domicile mais saa ñu génnee ci côté boobu tamit saa ñu génnee ñooy dem gagné te loolu tamit euh, daan na gën a jafe léeg-léeg daan génn nul wala gagné ak yooyu mu metti mais soo xoolee suñu trois derniers matchs yi si biti dañ ko gagné loolu tam day

étape par étape ñu atteindre son objectif te ñu ngi koy def léegi objectif qualification bi c'est atteint beneen objectif légui moy jël première place bi parce que comme ni may wax euh, compétiteur day chaque fois sentou li li nek ci kanam lo am rek nga yootu lenen li ñëw té loolu mo lay yebbu ba ci cëppaandaw bi muy lan dem Coupe d'Afrique jéem a gañewaat coupe euh, coupe bi

nga bokk ci ñi nga xamante yan quatorze candidats la ngeen wax man yëguma candidature de conseil FIFA bi mais loolu moo tax ma ne la bàyyi bañ hmm. euh, ci wax bàyyi moo nekkoon euh, date bii nga xamante ne bii nga xamee yow yow yéen yéen da ngeen ay kon yéen parce que man xaw ma ñan ñoo déposé ñan ñoo moo tax yow déposé nga quatorze yow da moo tax ma ne la yéen da ngeen ay waaw euh, moo tax da ngeen di bàyyi ba xëj na kaf fësal listam ba mu leer après ñu waxtaan ci. ci liste boobu yow bokk leeragul. <laughs> lan mais parce que déposé guñu <laughs> buñ déposé mooy mu yegg. mu nekkoon la date limite. waaw mais le 12. le 12 novembre mu nekkoon la date limite président. di ngeen di ngeen di ngeen xam moom laa bu ñu ñibbee Ndakaaru rek waaye ba ñu ñibbi Ndakaaru mbay. mais président Ndakaaru kat moom mooy loolu. tey tey tey ak suba. xam nga dañuy wax première place dañu bàyyi ñu concentré ci loolu rek. loo gis loo gis ak waxtoom rek. ñu fàtte ñu fàtte ñun suñu C'est là. c'est là, ouais. Vous avez raté là. C'est où on m'avait donné le, tournoi C'est là, vous avez raté là. Là, on m'avait donné le tournoi, du, le, le, ballon du tournoi. Le ballon du tournoi, ouais. Meilleur joueur. Man of the tournament. may ñu ndam il faut que nous gagnions, suñu gagné mali Mali Mali. c'est la première fois. moo tax Malien yi ñoom ñëpp ñu lay xaar waaye star bu mel ni warul football ba bàyyi te joué seen seen seen ci seen terrain <laughs> loolu la ñu wax ñoom. am <laughs> te loolu euh, bu fekkoon na euh, day nekk dëgg après day am lu koy findal dara lu ko donc euh, pour le moment ah, jàmm rek jam yenn yenn ñu laajte yenn yi nekkat yéex nañu euh, waxtaan ak fédération wala daanaka ministère da fay jël ay décision nangu il faut ñu nangu né dafa am nguur gu bess am kilifa yu bess euh ku nekk nga ñëw ak sa togaay am sa gis-gis ci sa liggéey c'est normal que en attendant ñuy am comme réglage ni wax mu am ay quelques euh, du ma wax euh, mésentente peut-être euh, ay incompréhension et même peut-être euh, ñuy jàngante pour gën a mais fi mu nekk nii wa état wa ministère ñu ngi fi ñëpp a ngi fi ñu ngi liggéey football bangi, ngi dox macha du donc sport bi sax mu ngi dox en général on fait actuellement de bon sax na kon non noonu rek dañu wut jàmm rek si dëkk bi te tamit suñu sport bi euh, fédération côte yoruko. état côté yow ko fédération bu lënkaloo ak état ñoo koy doxal te yàlla baax na fi ñu toll nii tout tout se passe bien macha allah. merci beaucoup ñu utal. Euh, tuñ dara dañuy relater information rek bàyyi la rek waaw waaw mais non information yi c'est-à-dire am na ay jafe-jafe yoo xam ne comme ni ma wax. ay ay ay réglage la woon. lu ne fàng kenn ko jeex aussi président. non ah yow yow ah kon kon bu mais déet non xam nga. waaw non xam nga fàng na ay wax ak affaire yooyu ñu laaj leen la fédération ñu ngi leen di demander rapport ñu ngi def nangam. sax loolu tamit mais il faut ngeen xam mbay mbay yow journaliste nga dans si doxal doxalin dëkk tey nga foog ne même ministre yi ñi fi nekk yëpp ñi fi nekkoon ak ñi fi nekk nii bu ñu demee état mooy doxee noonu reddition des dafa bokk si doxalin doxalin réew.

xam nga euh, audit wala ay contrôle yi souvent dit dañuy fàttali ne c'est à charge et à décharge parce que tey mun nañ la contrôler euh, gis dara lu jubul mais mun nañ ko ko gis dara lu jub mais li may remarqué généralement presque, bi loolu duñ ko rafetlu léeg-léeg nga gis benn administration boo xam ne gars yi dem nañ fa def audit génnee rapport félicité ko ne ko ah lépp mu ngi jaar yoon mais lii war ngeen ko jubanti li parce que loolu tam liggéeyu nit moom moom motul mais ça ne veut pas dire qu'il y a un problème il y a la guerre man gisuma ko noonu de man de ci sama xel bu gat euh autorité bi mu ngi def liko ko war ñu ñu ngi def li ko war léeg bu ñu démé ba xejna bokku ñu gis ki si mbir yi ñu dem tok waxtaan déma avancer après donc man pour man am amul lenen quoi parce que nous ñun on est ci fim nek ci askan bi euh, soxla askan bi lañuy dox état bi tamit ñi fa nek loolu lañuy dox ñom ñu fété ñu kaw lépp lu ñuy def ñun dañuy bëgg a yëgook mais dañuy bëgg aussi dox si li nga xam ne mooy gis-gis mu méngoo ak li nga xam ne intérêt football bi mooy sport pour mu jëm kanam. merci beaucoup président merci. demain Sénégal gagne, incha allah ñu ñëw ci conseil FIFA. ah voilà exactement. promis hein. promis. <laughs> merci waaw non suñu gagné amul problème on va gagner maam Adama Ndour naka nga def.